xam ngeen ne nag ñi ngi doon déglu euh, investiture yi ah, léegi nag xam nañ ñi nga xam ne ñoom la ñu investir ci commune Mbacké ak ci département bi coow li nag ak yëngu-yëngu yi bëri na lool waaye man ku ma xam di suivre samay position booba ba léegi mooy li ma bëgg mooy président Macky sàll am ndam ak la coalition Benno Bokk Yaakaar ci département Mbacké ah comme nag euh, bi mbir mi génnee ak léegi coow li bëri na sama responsable yi ñu bëri ñi ngi may woo ah, di ma wax ñenn ñi ne am nañu ah déception parce que séntu woon nañ naam ah, Bara Gaye diriger la liste majoritaire ci commune Mbacké wala ci département Mbacké et c'est tout à fait normal parce que bu dee liggéey politique ci département bi jàpp nañ ne liggéey nañ ko fii ah bu dee profil tamit jàpp nañ ne am nañ profil boo xam ne c'est normal que Mbacké ak doomi Mbacké ak waa département bi placer seen espoir ci man waaye comme nag dañu nekk ci coalition et kili coalition bi dafa am kilifa muy président Macky Sall ah bi mu jëlee décision également en responsable et en militant damay nangu décision boobu nga xam ne moom la président jël ah fas yéene futteeku sama mbubb nag liggéey ci pour que liste Benno Bokk Yaakaar am ndam loolu mooy sama première position de principe leneen li nag li ci des mooy tey ci guddi ak suba la ñu war a tàmbali pour defar liste yi ah ñi nga xam ne ñoom la ñu investir woo ñu ma téléphone wax naa ak ñoom ah jàpp naa ne dañuy tegal benn commission d'investiture boo xam ne ñun responsable yi ñooy toog xool ñan ñoo war a nekk ci liste yi parce que parité bi dafa am ñu defar ko liste yooyu nag moo moo taxoon tey ma daje ak samay responsable wax leen ne leen nañ dalal seen xel nañu jàpp ne Bara Gaye moom doomu Mbacké la doomu département Mbacké la waaye soldat président Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar don dalal seen xel ñu gën a engagé wu xam ne tey lañ gën a takkuwaat parce que jàpp naa ne ñaari weer yi ci ginnaaw gis nañ acte politique en terme d' animation yi nga xam ne Bara Gaye def na ko fii tey fii ñuy waxee yen yéen ñi ngi ci permanence départementale APR ci Mbacké te man maa ko fi ubi loolu yëpp bu ko defee pour que parti bi am animation pour que ñu liggéey am ay résultat léegi nag tey ci ci guddi ak ci suba danañ tàmbali liggéey ci liste yi waxtaan naa wax naa ko responsable également en tout cas dina engagé wu pour que ñu defar ay liste yoo xam ne leer na ma ne bu génnee. ku nekk ci Mbàkke da nga xam ne liste bi doomi Mbàkke yi ci war a nekk nekk nañ ci muy jarul ma koy tudd wax naa ko ba tey muy mécaniciens yeeg commerçant yeeg chef religieux yi nañ defar liste boo xam ne def ci tamit ay responsable politique waaye du ma nangu nag ñu defar ay liste yoo xam ne ñi ñu investir dañuy tëju seen kër génn ay liste yoo xam ne bu ñu génnee ëllëg si biir waa Mbàkke ne ah lii day séntuwuñu ko woon parce que tey soit tête de liste yi ñëpp xam nañ ne tey posé na problème donc li nga xam ne loolu lañ ko mën a rattraper nag mooy ñu teg ab équipe ñëpp d'accord ñu liggéey ñu teg liste yu sur la table ñu def ay liste yu leer nañ et ñu fexe ba dem déposer ko dans les délais voilà. j'en profite aussi pour lancer un appel ak sama yeneen responsable yi fi nekk yépp bokk ci mouvence présidentielle bi mu ñi bokk APR ak ñi nekk ci parti alliés yi ne leen ñoom ñëpp nañu ñëw ñu bokk liggéey pour que la liste Benno Bokk Yaakaar am ndam ci commune Mbacké waaye am ko également ci département bi. jàpp naa ne gisuma yeneen responsable yi nga xam ne loolu ngay wax dégg naa ko ci ñoom ci suba démb ba léegi maa ngi jël sama téléphone wooleel téléphone tey jii ci guddi gi danaa déplacé wu pour dem seeti leen wax ak ñoom ne leen bu amee ñu ci jël ay initiative pour ay liste parallèle nañ ko bàyyi nañu ñëw ñoom ñëpp ñu bokk liggéey pour que président Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar am ndam ci Mbacké parce que élection yi yemul rek ci élection locale yi ñi ngi jëm ci élection législative ñi ngi jëm ci yeneen enjeu plus important tey li gën a am solo mooy Mbacké retrouver wu autour de l'essentiel les meilleurs fils de Mbacké nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar yaakaar pour que yàlla may ñu ndam ci département bi loolu nag man ci laay liggéey te maa ngi fi ba ba ci guddi ba ñu déposer liste mhm. loolu moom duma ci bàyyi dara te duma ci nangu également ñu def ci benn xumtoo lu ñuy def lu ne dañ koy def ba mu leer nañ ñun ñëpp signé ñu doog dem déposer lissi yi préfecture maire yi ci àll bi tamit jokkoo naa ci ak ñëpp wax leen ne leen même bu fekkee ne am nañ confiance président ba ñu falaat leen reconduire leen nañu veiller à ce que liste yi ñuy defar ñoom it maire yi ci commune rurale yi nañ ci dugal ñi ci war a bokk ñëpp dëkk bu ci nekk commune bu ne nañ fa jël ay nit jël chef de village yi jël jeunes yi jël femmes commerçantes yi ñu def leen ci liste yooyu pour que communes yi mën a am ndam parce que liñ bëgg mooy gagner commune Mbacké waaye gagner tamit yeneen commune yëpp en tout cas j'ai confiance au maire du département jàpp naa ne danañ def ay investissement bu baax parce que ñoom la ñu jox liste yi ñoom ñoo koy defar ñoo koy déposé ci sous préfecture Kayel wala bu Ndam waaye nañ defar liste yu wóor am naa ci yaakaar bu fekkee ne tout dépend ci liste yi nga xam ne moom la ñuy defar bu fekkee ne defar nañ liste yu baax ànd également ci campagne bi moyens yi nga xam ne moom la coalition bi di joxe ñu teg ko ci taabal ji mu leer naññi keneen ku am sa dërëm également nga def ko ci jàpp naa ne mën nañu am ndam parce que gisuma fii également pour diir vrai une coalition alternative boo xam ne war nañu mën a jaaxal fi waaye nag investiture yi moom jógee na jëlee nañ ci ci ay góom il faut que également nag ñu réparer ko en faisant ay liste consensuelle yu wóor loolu nag moom man dinaa ci liggéey te dinaa ko yëgal également direction parti bi parce que lu may def tamit dama koy wax ba mu leer nañ dès le début. Mm. waaw alliés yëpp en tout cas parti yi nga xam ne ñoo fi nekk muy parti socialiste LD AJ ak yeneen parti yëpp teew nañ démb ci ndaje mi ñu fi defoon man jël naa sama téléphone woo ñëpp ñu ci bari ñu ci des taal naa suma oto dem seeti leen seen kër wax ak ñoom pour que ñu ànd jàpp naa ne parti yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar yëpp. danañ nekk ci suñuy liste. non mbir mi moom yombul xam nga man wax laa ne leen 99 ba léegi maa ngi yëngu politique ci département bi. élection yu bëri yi fi am maa ko superviser man ma am confiance su président Macky Sall superviser élection yi am 2012 2017 2019 ba 2020 2019 yi mujj am kon li ma jàpp mooy il faut waxtaan waaye mbir mi ku ne lay yomb na da lay nax. élection moom kenn mënul wax ne gagné nga ko te demagoo ba fekk waññiwuñu ke ñu kees yi ba compté xob yi gagné guñu kon dëgg gi mooy nañ liggéey sérieusement man je reste convaincu que mën nañ gagné waaye ku ne liggéey bi yomb na ci département Mbacké pour que coalition Benno Bokk Yaakaar gagné ko da ngay nax sa bopp mbir mi yombul waaye nag yombul san ne veut pas dire que c'est impossible mën nañu gagné waaye nañ liggéey am ci Pastef leeral mbir mi def ay investiture yu baax loolu mooy première condition yi pour que ñu réussir